oui dafa am lu lëmbe woon ci internet mooy ba ngay wax Cheikh Béthio mooy ba ngay wax ak Cheikh Béthio naan kaan yaay yàlla ma ngay lëmbe ci internet bi nag léegi ma bëggoon xam la fan nga tolloon ba wax loolu. non man ma ci tontu. ma rek ma si rek. oui ma du ma ci tontu. du ma ci wax sax. ci wax sax du ma dëgg mooy àtte boppam. ma xam naa ne man déglu rek man jullit laa man jullit laa yàllaa ma bind moo may rey moo may dundal man soo ma faa. jullit pire la te wérante ma sama du ma ci wax. léegi yow ban relation nga am wa rek yow tam dama may balaa nga fay jóge. <laughs> léegi waaw xaaral yaay ah, may tooñ de. may ma yow ban ban. Ah, waaw may ma tuuti benn question rek. waaw léegi ban relation nga moom ba tax nga ko doon. ban relation am ak day nee naa duma ci wax. waaye Béthio bu ma amul ak moom relation xawuma ko dëkkul ci dëkk bi sax nu war koo fonk ndax ki fonk lu dul moom muy Serigne Saliou te sëñ ba jur ko loolu doy na man Cheikh Saliou rek laa gëm moom laa bëgg ak sëñ Mbacke soxna loo setam ba sëñ Tuubaa rek laa bëgg te jullit laa nag de jullit laa jullit àqan laa